am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci sunu émission bi weesu gisoon nanu li mbindi yonent yi wax ci lu jëm ci malaaka yi ak seytaane jàngoon nanu ni yàlla sàkke woon ca njalbeen ga ay alfuni alfuni junni junni xel yu sell tudde leen ay malaaka ci biir malaaka yi amoon na ci benn bu gënoon a am xel te gën cee rafet malaaka moomu mu ngi tuddoon lucifer wante amoon na bés lucifer bàkku di xeeb yàlla ci biir xolam ba bëgg jël palaasu yàlla sax te amoon na it yeneen malaaka yu bari yu tànnoon topp lucifer ci bàkkaaram wante yàlla mi mënula dékku ñi ko bañ dàqoon na lucifer ak malaakaam yu bon ya fu sore jetaayam bu sell ba yàlla soppi woon na turu lucifer mu nekk seytaane liy tekki bañaaleb yàlla gannaaw ba yàlla dàqee seytaane ak ay malaakaam mu sàkkal leen safara sudul fey te benn bés yàlla dina sànni ci safara soosu seytaane ak képp ku ko topp wante seytaane tàbbeegul ca safara soosu ba tey mu ngi ci àddina si di fexe sànk ku mu mën tey nag danuy dugg ci sunu ñeenteelu njàng ci mbindi yonent yi ci téere bi jëkk ci tawret ñu koy woowe njalbeen ga ci saar bu jëkk ci aaya benn ak ñaar mbind mi neena ca njalbeen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf suuf nag dane mëlëng ne wéyëng lëndëm gi muur ndendu ndox yi ca njalbeen ga bi yàlla jëkke sàkk asamaan ak suuf amul woon dara luy dund fii ci àddina lépp ne woon wéyëng te lëndëm seytaane ak ay malaakaam rekk ñoo fi nekkoon wante yàlla doon na rab pexe ngir sàkk nit koo xam ne mën na xam yàlla bëgg ko te déggal ko ba faaw waaye laata muy bind nit yàlla fasoon na yéene defar àddina su neex fu nit ki mu naroon a sàkk mën a dëkk ci naataange gu mat tey jii nag dinanu seet ni yàlla waajale woon àddina si ngir nit ki mu fasoon a yéene sàkk lan la mbind mi wax ci lu jëm ci ni yàlla sàkk àddina si nee na ci juróom benn fan la yàlla aji sax ji sàkk asamaan suuf géej ak li ñu ëmb lépp kon nanu gëstoondoo tuuti ci saar wi jëkk ci mbind yonent yi ba gis lu yàlla sàkk ci juróom benn fan yooyu benn ci lu jëm ci bés bu jëkk ba nag mbind mi nee xelum yàlla yiir ndox mi mel ni picc muy dayaarlu noonu yàlla ne na leer gi am leer gi daldi am yàlla gis ne leer gi lu baax la mu xajale leer gi ak lëndëm gi yàlla tudde leer gi bëccëg lëndëm gi guddi ngoon jot suba dugg muy bés bu jëkk ba ci bés bu jëkk ba na yàlla joxe ndigal ne na leer gi leer ci biir lëndëm gi te it yàlla sant suuf si mel ni wërngël bu rëy ci asamaan muy wëndeelu benn yoon ci ñaar fukki waxtu ak ñeent yu nekk loolu moo tax ba tey nu am daanaka fukki waxtu ak ñaar ci bëccëg bi ak fukki waxtu ak ñaar ci guddi gi yàlla sosoon na àddina si ngir muy wëndeelu noonu ba xaajale leer gi ak lëndëm gi ñaar ci lu jëm ci ñaareelu bés ba mbind mi nee yàlla ne na jawwu dox diggante ndox yi ngir xaajale leen yii ak yële noonu yàlla bind jaww ji xajale ndox yi féete kaw jawwu ji ak yi ko féete suuf mu daldi nekk noona yàlla tudde jaww ji asamaan kon ca ñaareelu fan ba yàlla sàkkoon na asamaan si wër àddina si li ñuy woowe ci français atmosphère atmosphère mooy jaww ji nga xam ne moo wër àddina si te ëmb ngelaw li ñuy noyyee jaww jooju mooy aar lépp ak ñépp ci tàngaayu jant bi ak ci yeneen musiba yu bare su asamaan soo su amul woon nit du mën a dund ci kaw suuf ñett ca ñetteelu bés ba nag yàlla sàkkoon na géej ak suuf su wow ak gàncax gi déglu leen li mbind mi wax yàlla ne na ndox yi féete suuf asamaan gëndoo benn bërëb ba dënd bu wow bi feeñ mu daldi nekk noona yàlla tudde dënd bu wow ba suuf ndox ya gëndoo géej te yàlla gis ne baax na yàlla ne na suuf si sax gàncax muy gàncax gu ànd ak jiwoom ak garab yuy meññ tey jur jiwoom lu ci nekk ak wirgoom ci kaw suuf mu daldi nekk noona yàlla gis ne baax na ngoon jot suba dugg muy ñetteelu bés ba kon ci ñetteelu fan ba yàlla aji bind ji sàkkoon na géej gi ak dex yi te mu bind it ay junniy junniy fànnay garab ak seeni meññeef ak seeni jiwu ay mango ay banaana ay kokko xaal tamaate suppome karoot ceeb dugub gerte ak yeneen junniy fànnay ñam te yàlla ne woon na ci mbirum lépp li mu sàkk baax na lépp lu yàlla sos te def ko dafa baax neex te mat sëkk gis nanu ba noppi ne lenn rekk la yàlla mënula def yàlla mënula def lu bon ndaxte yàlla ku baax la xëy na am na kuy laaj su fekkee ne yàlla ku baax la lu tax kon àddina si fees dell ak lu bon lu tax sama tool doxul ren lu tax sama doom ji feebar su fekkee ne yàlla ku baax la lu tax lu bon di génne ci nit ci lu wér laaj bu am solo ngi noonu te mbind mu sell mi am na ci tontu bu mat sëkk te dinanu ko gisi ci njàng yi di ñëw wante tey ji nanu denc ci sunu xel lenn yàlla ku baax la te naka noonu lépp lu mu sos te def ko dafay baax itam nanu xalaataat tuuti ci mbaaxug yàlla gis nanu ni mu sàkke woon garab yi ci ñetteelu fan ba ndax xam nga lu tax yàlla sàkk garab yi ak seeni meññeef ndax yàlla dafa leen soxla ndax faj xiifam a tax mu sàkk garab yi meññ doom yu neex déedéet yàlla aji bind ji du xiif mukk te soxlawul dara kon nag lu tax yàlla sàkk garab yi mbind mi dafa nuy won ne yàlla ci mbaaxam sàkk na lépp ngir nit ñi façon fasoon yéene bind ndax xàmmee nga mbaaxug yàlla ana kan moo mën a mos maanaam benn màngo ak cafkom gu neex wala nga xeeñtu benn tóortóor ak xetam gu neex te gisuloo ni yàlla baaxe wala ndax mën nga xool benn garab te gërëmuloo yàlla aji bind ci ndaxte su fekkente ne garab amul woon sa dund doon na fi gën a metti matt du am ngir defar këriñ mbaa bant boo defare sa kër doo am ker goo mën a noppaloo ci tàngaayu bëccëg bi mbaa ay xob yoo mën a fajoo su garab amul woon dund du mën a am sax fii ci kaw suuf te garab yi yàlla sàkk lenn rekk la ci biir xéewal yu bare bare yi nu yàlla defal ngir nu mën ciy bànneexu yàlla dafa bëgg nu xàmmee mbaaxam loolu la yonent yàlla daawuda bind ci saboor naan mos leen te gis ni aji sax ji baaxe wante léegi fokk nu jëm kanam ndaxte sunu jot a ngi wéy ñeenteel ci ñeenteelu bés ba nag yàlla waxoon na ne na am ay leer ci jaww ji ngir xaajale guddi ak bëccëg di ay tegtal yuy ràññale jamono yi tey takk bés yi ak at yi yàlla dafa joxe ndigal rekk te jant bi ak weer wi ak biddéew yi daldi nekk ci jaww ji yàlla wax genn kàddu rekk te suuf si tàmbale wër jant bi mu daldi waxaat te weer wi tàmbale wër suuf si am na lenn lu nu war a leeral fii lan la yàlla jëfandikoo ngir sàkk lépp li nekk ci àddina si lan la mbind mi wax ci loolu nee na yàlla sàkk na àddina jaare la ko ci kàddoom ngir li bët di gis dafa rees ko ak lu bët mënula gis jàngoon nanu ba noppi ci bés bu jëkk ba yàlla waxoon na ne na leer gi nekk te leer gi daldi am ca ñaareelu fan ba yàlla waxoon na ne na jaww ji am te jaww ji daldi am ca ñetteelu fan ba yàlla waxoon na te li mu wax am ak nangam ak nangam kon lan la yàlla jëfandikoo ngir sàkk lépp li nekk ci àddina si jëfandikoowul dara lu dul kàddoom yàlla dafa doon wax rekk te li mu wax daldi am yàlla sàkk na lépp jaare la ko ci kàddoom te ba tey yàllaa ngi téye lépp jaare la ko ci kàddoom gu am doole gi kàddug yàlla moo tax ba weer wi ak biddéew yi taxaw ci jaww ji te toxuwuñu kàddug yàlla moo tax ba jant bi di fenk tey sox bés bu jot doon na metti lool su fekkoon ne xamunu ndax jant bi dina fenk suba wala déet wante yàlla sant jant bi muy fenk tey sox te kon noonu lay def mbind mi nee na yàlla kuy sàmm kóllëre la du tebbeeku mukk du soppeeku mukk kàddug borom bi day sax ba faw ca juróomeela bés ba nag yàlla sàkkoon na ay junni junni wirgoy jën ak picc bind mi nee na yàlla ne na ndox yi fees ak ay ndiiraani mbindeef te na lépp luy boroom laaf tiim suuf si naaw ci biir jawwu ji noonu yàlla sàkk rabi géej yu mag yi ak bépp mbindeef yu ne gàññ ci ndox mi xeet wu ci nekk ak wirgoom teg ca lépp luy boroomi laaf ci wirgoom yàlla gis ne baax na noonu yàlla barkeel leen naan nangeen giir te bare ba fees ndoxi géej gi mu neeti na picc yi bare ci kaw suuf noonu ngoon jot suba dugg muy juróomeelu bés ba ci lu jëm ci juróom benn lu bés ba nag yàlla sàkkoon na bàyyima yi ak nit waaye amunu jotu tekki ko tey kon nag ci émission bi di ñëw bu soobee yàlla dina nu seet bu baax li mbind bi wax ci lu jëm ci naka la yàlla sàkkee nit ku jëkk ka ak lu tax mu sàkk ko tey ci sunu njàng gis nanu mbaaxuk yàlla jàng nanu li yonent yàlla daawuda bind naan mos leen te gis ni aji sax ji baaxe ndax mës nga mos mbaaxu borom bi yàlla ci dëgg-dëgg bés bu jot nu mos te lekk aw ñam wante warunu fàtte ne moom mi sàkk nit ku jëkk ka di ko may li mu wara dunde wax na ci kàddoom ne nit du dunde mburu rekk waaye itam gépp kàddu gu génne ci gémmiñu yàlla sunu njàng mi di ñëw dinanu gis ne nit du yaram kese wante boroom ruu la te sunuy ruu faaw ñuy dunde wax yàlla kàddug yàlla baax na lool waaye faaw nu xiif ko ndax sa xol xiif na xam-xamu dëggu yàlla ni ngay xiife aw ñam soo xiifee noonu kàddug yàlla dinga gis dëgg gu la mën a may jàmm ju yaa ak yàlla fii ci kaw suuf ak cër bu dul yàqu ci kaw asamaan te xam nanu ne loolu lu wér péng la ndaxte yàlla ci boppam moo ko dige bi mu nee yéen ñi xiif te mar njub barkel ngeen ndax dingeen regg kon nag fii lanu wara yem tey wante nu ngi leen di xamal ne njàng yu chronologique yi nuy def yépp am nañu ci ay kaset ku leen bëgg a am mën nga noo bind te dinanu la wax ni ngay def ba am leen su fekkee itam ne ay téere ci mbind mu sell mi ñoo la gën a soxal mën nga bind nu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te bu leen fàtte woote bu rëy bi nekk ci mbind mu sell mi mos leen te gis ni aji sax ji baaxe